asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke xalifatu Cheikh Saalihu Mbacke yal na ko sunu borom gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram te dolli ngërëmul yàlla ci sëriñ Saalihu Mbacke yàggal fi njabootam gépp mbooloo mi nga xam ne ñoo tudd Jazbul Xuloob te lëkkale mboolem dongo bu mas a jaar ci daara sëriñ Cheikh mu sëriñ Saalihu ñooy amaat mbégte di yëkkati ndigal lu bàyyi ko ci seen sëriñ di sëriñ Seex mu jëm ci bàddali ji tool yi daa Touba Darou Salaam Maodo rit muy bàcc gerte ga ak jëri ko ak roñ gooñ ma loolu nag moo tax ñu yëkkati seen kàddu di ci woo sëriñ Galas Mbàkke moom sëriñ Seex Baara Mati lay sëriñ Galas Mbàkke moom sëriñ Maam ibre Mbàkke sëriñ Maam Moor Mbàkke moom sëriñ Busoobe Mbàkke sëriñ Abdoulahad Mbàkke moom sëriñ Moustapha Caytu sëriñ Xaban Mbacke ñaaxar sëriñ Moustapha Mbacke ñaaxar alhaaji Jiili Touré Murid Sadikh Touba RTS sëriñ Alioune Thioune directeur Africatel sëriñ Moustapha Jaxate moom sëriñ Modou Xayri Jaxate sëriñ Sidi Mbacke sëriñ Sidi Jenn Niis sëriñ Sidi moom sëriñ Abdoulatif Jenn sëriñ Ibrahima Jenn Touba Mbusoobe sëriñ Cheikh Modou Fall jëf rek a wóor sëriñ Moustapha Fall Fallu Fatikan sëriñ Sidi Fall Baye Ndaam sëriñ Abdou Boussa Gaar bu Ndaw sëriñ Mourtala Lo moom sëriñ Mouhamadou Lamine Lo sëriñ Maam Cheikh Lo moom sëriñ Mouhamadou Lamine Lo sëriñ Moustapha Seck Koupantoum sëriñ Moustapha Seck Mbarxa sëriñ Ismaïla Dia Njar Murit sëriñ Ibrahima Dramé Lugo sëriñ Assirou Wade Kaolack sëriñ Talla Wade yëmbal benn baraak soxna Ndey Jaw ca Njaañ sëriñ Jibi Fay Réfan Boof sëriñ Fallou Diouf jatti Mboro sëriñ Modou Gueye jatti Mboro sëriñ Cheikhouna Ndiaye daayira na Nasri Touba Petersen Baye Fall Jaxate Touba ceeb Bambey soxna Dieye Diop Madiana Mbaar ya sëriñ Lo Baye Fall Corniche Bitigu Fall Ousseynou Diop Asalem soxna May sëriñ Saliou Fall Baye Fall Mbay Fall Daaru Salaam Alhaji Malick Gueye Aliya sëriñ Modou Gueye jëwriñu Daaru Xadim Toole Ndiaye Touba Dendey Diawara sëriñ Modou Sy kër sëriñ Abdou Samad Sy Darou Moxti sëriñ Moustapha Diop Darou Moxti sëriñ Abdou Ndaw Maodo Murit sëriñ Amdi Aan Condox sëriñ Omar Gueye Condox Ndiasse Thiam Condox Cheikh Silla ci la sëriñ Maam Góor Ndiaye ci la Alhaaji Jaw ci la Alhaaji Majama Seck meeru Ribo Escale Babo Seck Taïf Sengoji Sow Taïf Malick Seck Touba Cekkeen Pape Seck Touba Cekkeen Babou Seck Touba Cekkeen sëriñ Bassirou Mbacke Tawfeex sëriñ Mor Lo Touba Ali Mbenda alhaaji Souleymane Ndaw ca xaj Assane Ribo Ngaari Samb Daaru Karim alhaaji Gueye Touba Afia Dame Sarr Touba Afia alhaaji Moussa Thian Afia sëriñ Seex Ndaw Condaxel sëriñ Seex Ndaw Condaxel Baye Malick Gueye Patakoor Abdoul Aziz Ndaw kër sëriñ Abdou Limaamu Ndaw Medina Cekkeen Njaga Ndiaye Medina Cekkeen ak bokki séeréer yëpp Njool Tine kër Ndongo Ndiaye Alhaji Wilane Gatou Malick Malick Sour Ngambi Tool Abdou Salam Gambia Lamine Jiite Espagne Khadim Diallo Maroc Serigne Cheikh Abdou Fall Espagne Serigne Modou Lo Italie Mame Thierno Gueye France Serigne Saliou Niang Njool Amérique Serigne Saliou Ndiaye Amérique Khadim Dia campement Baye Sall Dia campement Cheikh Mbour Basirou Diagne Mbour Modou Faye Tangis Modou Diom Tangis Amdi Ndiaye Thiès Serigne Omar Sall Dakar Malick Samb dakaar bàyyi Serigne Sow dakaar Djili Gueye Ndar. mbooloo mi nga xam ne ñoo tudd bul Xuloob te lëkkale mbooleem dongo bu mas a jaar ci kër Serigne Cheikh seen woote baa ngi noonu ñu di ci soññi nag seen mbooli mokki dongo yëpp di ci soññi mbooleem Cheikh boo xam ne mas nga jaar ci kër gi. di leen xamal ne liggéey booba ñoo ko daan liggéey léegi nag ñuy dem di wàllu ji seen doomi dongo ya ak seen rakki dongo ya fas yéen di leen ko defal di ñaan nag képp koo xamante ne bii def nga ci saw ñaq yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo adduna ak jooj alaxira képp koo xam ne bëgg nga ci ak leeral mën ngaa jokkoo ak sëriñ Modou Diop jëwriñ wala nga jokkoo ak sëriñ Cheikh Sakho ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy coordonné liggéey bi ñi ngi ñaanalaat sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou yàlla yàggal ko fi tolli ak wéram wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu